waa Sangalkam jóg ca teel fas yéene bay seen waar ci bésub setal gi premier ministre Ousmane Sonko ñu ko doon fi xaar mu ñëw fekk fii askan wu takku te bég lool ci lii ñu sumb mobilisation exceptionnelle la Sénégalais yi def ci wuyu si appelu monsieur le président de la république ma wax ni man mi may ñëw maa ngi doon xool yenn image yi gis naa ni amul région bu des amul département bu des ñu am mbégte teew fii ak euh, ànd ceeg lenn ci membre gouvernement bi. lii buñ ko defee nii dafa fekk monsieur le président de la république moom ci boppam moo bëggoon mbooleem seen ñu yor ndomb tànk ci réew mi njëkk a joxe exemple parce que askan boo ko bëggee yóbbu ci direction da nga ko fa war a jiitu waaye doo toog ci bureau taal sa clim. ne ko demal def moo tax moom ci boppam moo jëkk a génn tey. Sangalkam laaj set setal laajit ñu fattar ñi yoonu ndox yi lu ci bëri ay tabax yu jaaduwul ñoo koy fatt te loolu premier ministre xamlewaat na fi ne dinañ ci jóg. loolu nag bu amee responsabilité état la d'abord ndax kër sax mur sax mur mur de clôture kenn du ko tabax ci benn fan kenn ko tabax ci benn semaine. waxuma laa kërum lëmm waxuma laa quartier lëmm donc soo seetee lu mel ni quartier bi soo xoolee immeuble bi ne suñu gannaaw xam nga ne lii ay weeri weer wala ay at lañ ko tabax jamono yooyu ñu ko doon tabax ñan ñoo joxe autorisation ak ba ñuy joxe autorisation bi ndax daf leen réeroon ni fii yoonu ndox la waruñu fee joxe autorisation pour li ni mel quartier bee nekk suñu gannaaw ñëpp xam nañ ni ñëwul rek juddu ci benn fan lu ñu tabax la ci ay fani fan loolu lañ ne nag loolu dina dakk mënatuñu nangu administration am code de l'urbanisme am code des domaines am les plans euh, directeurs d'urbanisme am les plans détaillés d'urbanisme am lépp ñu ne leen fii nit waru fee tabax ñu seetaan ko sàggane ko léeg-léeg sax ñoom ñooy def lotissement bi tax nit waru fee tabax féexal yoonu ndox yi li muy laaj ci pexe dina bari waaye benn ngi nii premier ministre ne ko fii muy bassin buñ fi nar a tabax. ñu ne nag dinañ ci def suñuy kéem kattan ci ay programme yoo xam ne lu ñuy def la ci temps bi waaye ren ren tembe lañu mën a def moo tax ñu dugal armée ci mbir mi moom ministère am ak ñi ciy liggéey dinañ lënkaloo ak armée national gas fii benn bassin nañ ko waxee ci wolof. benn mbalka mu mag la voilà benn mbalka laa doon yarkatu xar yi ñoom xam nañ yooyu <laughs> dinañu gas fi benn mbalka bu mag a mag a mag. boo xam ne dañ koy def ci fi nga xam ne moo gën a xóote mu nga xam ne ndox mi bu ñëwee dañ ko essayer récupérer foofu am yaakaar ni loolu mën na wàññi problème bi ci at wi. président de la république xëy caaroy premier ministre ñëw fii Sangalkam feneen ñeneen tamit jóg fa premier ministre ne bu kenn teggi tànkam. moo tax boo buggee nag bale boo yaakaar ni bale mbedd mooy moom rek la ñu war a bale juum ndax nëgëni si démb euh, euh, daaw ci bésu tey jii di premier juin ni ñi taluñu woon bale ak ji ay garab waaye ñi ngi doon ay lacrymogène ak ay pneu ak internet bu ñu coupé te dara waralu ko lu dul ñi ñu dénk ne leen jaare leen ko fii ñu bako fa nekk ci ay complot ak ay réglement de compte moo tax bale googu nag may dalal xelu sénégalais yépp lañ ci war a def nañ ko def mbir mi dina leer nañ ba ba ñu xam ku def ak lu mu def bu dee Ousmane Sonko def Sénégalais yi dinañu xam bu dee keneen ak keneen def Sénégalais yi dinañu dinañu xam ñu wax Sénégalais rek ni seet setal bi lu gën a yaatu la waaye bii moom lañ leen gën a soxlawee bii la ñu gën a bëgg ñu dugal ci seen loxo la ca des jafewuñu te dinañ ko def bu soobee yàlla. kon Sangalkam mi ngi dundaat yaakaaru gox bu set te sell mbalit jaaree fa jóg naka noonu tabax yu jaarul yoon. garab gi premier ministre jëmbat fii du ñàkk mu màndargaal sàngal kam du soppi xar kanam